Euh, Fatel sama doom la euh, dafa nekk ak sama rakk ma Ndiaye ñu nekk studio bu mu gis ma bëgg ma takk ma def ma yaayam def ma xaritam def ma léppam looloo tax ma waral sama bés sama ñëw tey ma koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko jëkkëram musal ko ci làmmin ak seytaane ah yàlla lépp li mu bëgg ci sëyam bi yàlla na ko suñu borom defal parce que Fatel xale bu yarul en fait xale bu yarul la xale bu baax bëgg nit yaatu maa ngi koy ñaanal lépp lu muy séntu ci sëyam bi suñu borom defal ko ko. fan si la mu nekk nit ku baax ku oyof waaw euh, Sori Touré Sori l'officiel def ñu xamante. mais Fatel nekk nit ku baax ku oyof nit koo xam ne heure boo ko woowee jot ko heure boo ko soxlaa jot ko lii du chance mérite la ndax nit ku baax lu baax rek ngay am macha allah nit ku neex a bëgg daal. leen ñaanal sëy bi yàlla na nekk euh, sëy yiñ takkee ci aras may yàlla may leen ci njaboot bu bari te barkeel te incha allah dina sëy ndax borom baax la doomu sëykat la. ah borom bi sama rakk la sama xarit la xale bu yaru la. wax fa dëgg yàlla respecté na ñëpp ku mu gis jàppee la ni boppam xam nga xale bu loxoom setee day mën a bokk ak ay mbag nap moo tax mu invité ma bàyyi lépp ñëw teewal ko bësam bu rafet bii nii. ah di ko conseil lu dul ne ko sëy daal mu ngi nii yàlla génne na ko ci rang célibataire yi na dugg rek te muñ te xam ni sëy benn sëy yombul na bës xolam muñ te xam dina dégg lu nekk nag.